média Médias alxames bu nek ak El Hadji Assane Gueye jotaayu le la dara politique société culture sport ci gatal lepp lu laaj waxtaan leral ak yonal ci yon wi lañ koy waxtane yon wi ak elagia Hadji Assane Gueye alxames bu nek ci

di waxat ci dialogue wote diso gi mu wote opposition beeg xëy na société civile beeg ñeneen ñoo xamni bëgg na waxtaan ak ñoom ci euh, réew mi fi mu toll ak fi ñu jëm euh waxon nako qualité bamtu wat ko demb euh dañu bëggon xam waxon nako sax 3 avril laata ñuy féete indépendance euh dañu bëgg xam wote googu wote ak lumu lu ngeen bëgg waxtaan ak ñi ngeen bëgg waxtaanal ci lan ngeen di waxtaan waaw jërëjëf Babacar di di nuyu Seydou Nourou bi ñu toogal di nuyu tamit suñ mbokku auditeurs yi ñuy déglu yëpp ci RFM di nuyu sénégalais yëpp Babacar defe naa président de la république du tey la njëkk a woote li tax mu woote tamit dialogue wax na ko comme ni nga ko waxee jour Korité ba mu xaw a leer wax euh, ni que dialogue politique lañ bëgg mu wax ni que da koy def parce que wàllu njiitam la li mu jiite réew mi et que japp na ni que amna ay jamono yo xamni tok toog waxtaan dafa bax dara dara dara amul ñu ci situation de crise ñu ci situation bo xamni war na ko mëna imposer mais mom gis-gisam ak euh, nim waxon Sénégalais non na leen di jité lool motax mu woté waxtaan parce que japp nañ ni que amna ay acteurs politiques yo xamni ni amna yu jotta xew seen digënté ba ñom ay lool c'est pas c'est pas cohérent bo né euh, nekkuñ ci crise mm. ay amul ci réew mi. Mm. ba pare ne ñoo leen waxtaan moo tax ñu laaj la waxtaanuk lan. mais amoo droit wax c'est pas cohérent parce que cohérent dafa am lu muy tekki. cohérent mooy boole lu mënta boolewu ñàkk cohérence mooy euh, jël lu mënta ànd. mais nee naa la boo seetloo ci fukki at yi fi président de la république nekk ñaata yoon lañ fi woote dialogue national dialogue bi fi mujj kay man ba dem na ba ci ay commission yu bari lañ defoon commission sociale commission revendication commission politique hmm. mais ñi nekkoon ci commission politique yi ñoo gënoon a bar yeneen dialogue yooyu mooy defe naa yi fi président Famara Ibrahima Sagna doon coordonné yeneen pàcc yépp dialogué woon nañ ba indi teg hmm. léegi wàllu politique bi comme que d'habitude mooy gën a gaaw donc moo tax moment bii nii mu woote dialogue mais nag mais nag à l' instant T. Mm-hmm. à l' instant T. Mm-hmm. incohérence am na. lu tax mu am mooy. Mm-hmm. Euh, woote nga dialogue. mais gis nañ ne situation politique bi c' est tendu am na ñoo xam ne ci jamono ji ñu ngi ci euh, prison bi. ba sax am ñu ne c' est des détenus euh, politiques waxuñu ko. ndax dialogue mën naa am te loolu réglé wuñ ko. non non xam nga yeen tamit journaliste yeen tamit yeen a war a seet yeen saa yi ngeen bañ a topp eh, ngeen war a topp xaaral rek mhm. ngeen bañ a topp ñi nga xam ni dañuy wax en fonction de leur euh, position en fonction de leur compréhension bi nga xam ni dafa uute ak li am dëggantaan parce que yeen ci digg bi ci digg bi ngeen war a taxaw xool lu yanu maanaa ak lu yenul maanaa fii ku fi wax waxi détenu politique ak ku fi wax ay waxi martyr mooy da ngay hmm. fii gisagoo fi képp kenn kuñ jàpp indi tëj ci kaso bi ni a tax gisagoo fi kenn ku ñu fekk këram rek fekk muy tëdd muy nelaw ñu yeewu ñu yóbbu ko hmm. képp kuñ fi jàpp yéen seen bopp yéenay relayer activités yi mu doon def ba ñu bañ ba ñu jàpp ko hmm. képp ku kuñ fi jàpp boo xoolee am na lenn lu mu def lu méngoowul ak doxalinu euh, code pénal donc kooku est-ce que est-ce que est-ce que bagn tension est-ce que bagn bagn bagn bagn bagn euh, bañ bañ jàmm lañ ko mëna a tuddee. yéen ba ngeen nekkee opposition da ngeen ko wax té kenn jàpp leen. Euh, moy critiquer justice. Hmm. ne police politique mo fi am. Euh, magistrats yi dañuy sukkandiku ci li président di wax ñu koy def loolu ba ngeen nekkee ci opposition da ngeen ko wax té kenn fexelu leen. mais dédé lu wax loolu. ñu de fekkee nañ ko. 2011 2011 couvrir na. li ngeen li ngeen fekkee moy fekk ngeen ñuy critiquer. critique dafa am critique. dafa am diffamé. mais ñi fi ne tey mënuñu def dañu critiqué mais taxaw di saaga ay magistrat loolu nga ni critique mais loolu yàgg na fi am na waaw mais déedéet kan moo ko def ñun dañ ko mës a def peut am na yoo xamante ne tamit amoon na fi ay temps de léegi li am critique la rek de mhm. du critique mhm. daf leen dànk yéen da ngeen am warugaru xàjjale critiqué mooy d'accorduma ci ni yoon di doxe d'accorduma ci li nii mais taxaw jël magistra bàyyi jàmburu am responsabilité comme yow responsabilité bi nga am mu am cër buñ ko dénk boo xam ne askan bi moo ko ko dénk mu koy doxal nga ni kii sàcc la kii fenkat la ñii ay jaam la ñii ay terroriste la ñii ay lii la loolu mooy critiquer critiquer mooy nii nga bind sa kayit bi nii nga waxee yëf yi d'accorduma ci parce que nan man nii laa gise hmm. mais taxaw di. ci démocratie wax sa xalaat. du problème. waaw mais yéen ko def problème. ba Babacar déedéet Babacar bu fekkoon wax sa xalaat problème la fii doo wax barki démb li nga wax ba pare continuer tëdd sa kër di xëy di ñëw di liggéey si. <laughs> loolu ci démocratie nga ko mëne mais bokkul ne déet waaw moo lay wan ni démocratie am na. Mhm. parce que def na commentaire am. teewul mu doxi soxlaam teewul kenn tiitalu ko kenn waxu ko parce que critiqué na critique boo xam ni bon peut-être moom gis-gisam la xalaatam la mais def na ko ci jéem a sàmm wormay booleewu ko ak ay saga mais la tout saaga yow. mais saga mais kay wee Saga kay weesuwul. mooy parce que ñun on a vu les les les les les les communiqués mais est-ce que tamit li ñu bind saga la saga bu tax ñu li saga la. lan saga saaga en réalité mais déedéet xam nga saga moy hmm. jël c'est peut-être des critiques qui sont acerbes quoi. des critiques acerbes. non non xam nga xam nga hmm. xam nga wax yi. Hmm. bu fekkee ci tubab la dañuy utiliser ay adjectifs qualificatifs. jël jël qualifi jël qualificatif bo xamni bokul ak warma bokul ak deug bokul ak ñun suñu euh, gisinu aduna nga jël ko mu wóor la ni que bo né dañuy clochard disé xawma ay magistrat bo né magistrat ñom ñep ñëpp ay jaam bah, c'est juste du français hein waaw mais mais mais c'est juste mais attends c'est juste du français mais mot bobu amna équivalent bo sétlo amna mot bo xamné ne mën na méngoog loolu bu gëna am orma Mhm. mais les saga magistrat les saga mhm. magistrat outrage à magistrat kay loolu du Macky Sall moo ko fi indi mhm. loolu mi ngi ci code bi depuis légui yow bo li ngay wax waaye police wote ak procureur mi yóbbuwaate yene len yilif wa mais dédé encore une fois yow ni ngay défé sa liguey non la policier bi di defee liggéeyam encore une fois ni yow ni ngay défé sa liguey non le procureur bi di défé liguey procureur dañ ko fay teg niko bép sénégalais bu doxé ak lu méngoowul ak code électoral bi nga xam ne moo ñu tënk ak ak euh, code pénal bi moo ñu tënk da koy woo nga déglu ko nga def ci moom li ci léegi xam nga ba tey cohérence pour cohérence dañuy dellu ci dialogue bi parce que mënuñoo mënuñoo il faut que il faut que il faut que ngeen régler Babacar problème mu détenu politique mais attends du du même nit yi wax détenu politique waa des détenus politiques waaw déedéet c'est des détenus mais bu ngeen ko waxee ah. da wax rek parce que ah. li ngeen di wax tegu leen ko fenn parce que gisagoo ci kuñ jàpp fekk këram mu tëdd ñu woo ko yow mii wax nga lu la neex kenn jël siw la bërki démb am na keneen ku wax lu ko neex kenn jëliwu ko am na ay leader de l'opposition yoo xam ne ñoo gën a critique chaque jour ñu wax kenn jëliwu leen mais mun toog di wax lu la neex di saaga nit ñi di sosal nit ñi di def nit ñi après bu ñu la jàppee nga ni détenu politique toog organiser say manifestation nit ñi dee ci nga tudde leen ay martyr mais kooku yéen bu ngeen nangoo loolu ba di ko relayer yéen a ko nangu mais may leen ñu ñun ñi nga xam ni euh, sénégalais yi ñun la ñu wóolu ci kàttanu yàlla teg ñu fi ñu doxal yoon mais nag c'est parce que démocratie dafa am moo tax sax ngeen di mën a wax traité ñoo xam ne duñu ay détenu politique ay détenu politique di traité ay nit ñu dee ci ay manifestations yoo xam ni kenn ay caaxaana ko lal ñu leen di tuddee ay martyr ngeen koy relayer. duñu démocratie amul de waaye tàggatémbe na nag. tàggatémbe na franchement tàggatémbe na nit yàlla en réalité non non tàggatémbe na. Mm-hmm. ci ñi nga xam ni dañoo xëy décider mm-hmm. wàcc yoon. ci ñi nga xamni ni dañoo xëy décider ni que seen liberté may na leen ñu saaga ay nit ci ñi nga xamni ni que euh, dañoo xey defe ni que mën nañ sosal ay nit ci ñi nga xamni que dañoo xey defe ni moo mën mënuñoo def mënuñoo def mënuñoo ñoo def dialogue te mm-hmm. te ay nit nek ci kasso bi doon ay politiciens lool lool bala ngeen toog bala ngeen euh, toog waxtaan fo foog ngeen régler problème yooyu ba pare problème liberté ak démocratie papa babacar liberté ak démocratie yow mi yaa ko jëmmal encore une fois parce que yow yaa ngi xëy di wax li la neex bu nga wax ko waa opposition bu subaa nga wax ko waa nguur gi dangay xëy ñëw liggéey si bu fekkee d'accord nga ni que ñi lay saaga ci sa page Facebook di dugg di wax wax yu ñaaw ñooñu ay ay détu bu ñu leen jàppee ay détenu politique la mooy wax nga rek li nga bëgg a wax te ci antenne nga koy waxee parce que ku fi wéet bu ñu la saagaa wax la li ñu lay wax dina la metti parce que di nga xam ne ndax lii dëgg la et yoon dafa ñëw pour sàmm àqu yelleefu ñëpp topp say àq ci démocratie du ci ñu dem ba ci yow

parce que ñun yarawuñu jàpp bi dafa bëri. loolu mënuñu koo ñàkk a waxtaanee. waaw mais léegi loo bëgg ku rey nit ñu bàyyi ko. déedéet waxuñu non non rey nit amu fi rey nit amu fi waaw mais déedéet. defal ñu jàpp ñu. mais defal ndànk defal ndànk léegi loo bëgg ku jóg di rey nit duñ ko def dara. parce que politicien ko def dara parce que politicien ku jóg di saaga nit ñi di saaga institution yi kenn du ko def dara parce que politicien la ku jóg euh, ni tey kañ du fi jaar fii buntu RFM damay taal sa kër damay tef lii damay damay def ay cocktail molotov damay songu kii damay songu kii. ñu bàyyi ko euh, parce que politicien la Mame Mbaye Niang bu fekkee ni foofu ngeen bëgg a réew. Euh, waxtaan waxtaan wax dëgg ci la Seydou attends attends attends wala waxtaan la. bu fekkee tey président dafa woote waxtaan. te hmm. Ousmane Sonko bokk ci dialogue boobu du mat parce que Ousmane Sonko. Euh, ci taxawaay ci politique ci Sénégal di woote diisoo ci ëllëg réew mi ak tolluwaay réew mi te boole woo ko ci. Mm-hmm. boobu waxtaan day am lu ca des. xam nga xeeb réew mi weesuwul nga ni 17 millions de Sénégalais président de la république woote waxtaan nga jël benn nit nit bu ci bokkul. benn nit bu ñu ah, ak moom ak ñi ànd ak moom. moom mbooloo mi ànd ak moom. waaw déglu ma wax la rek. Ah, sur les de Sénégalais. xeep réew mi xeet askanu Sénégal xeeb ñun li ñu doon xeeb histoire république bi ñu am weesuwul tey nga bëgg a toog ci sa antenne jàkkaar sénégalais di la déglu ñi lay seetaan te ci ci télé bi di la seetaan nga ni président de la république bu wootee waxtaan ñëpp ñëw usmaan sonk bu ñu xaw sa waajooju bu ñëwul waxtaan amul. loolu defe naa saaga suñu intelligence. mais du moom non non pas du tout ñi mu andal motax ñuy wax. Euh, on a dit force vive de la force vive président force vive de la nation là aussi ah. les forces vives dañuy wax tara yalla tax euh, monsieur le ministre wax dëgg yàlla. xam nga boo Ousmane Sonko kessé du moom kessé motax ñuy wax. mais mbolé bi mu àndal tamit dafa am doole. quoi qu'on dise loolu ké mënu ko bañ. déedéet dans dans un pays. Mm. dans un pays démocratique comme ni ngeen koy réclamer. c'est la majorité. Mm-hmm. c'est la majorité qui détermine la voie à tout à fait. Mm. léegi bu fekkee ni que seen waa jooju ngeen di wax ñëwul jàpp ngeen ni ko majorité amul. non pas suñu waa mais mais mais attends élection élection yi fi mujj am élection yi fi mujj am. mënoon leen ci ñàkk sukkandiku ak euh, li ngeen teg seen bët di ko gis ci. réew mi muy dox. ngeen ni bu ñëwul garaawul ah si. bu ah, ñëwee bu ñëwul dara la ci. xam nga dialogue politique moom ay parti politique la ñuy invité dialogue politique. ken woowul ay entité ay kii ay ay ay parti politique la ñuy woote représentatif ñooñu foofu noonu ñu ci bari dañoo àndoon dem élection ñoom ci seen biir kenn mënta xayma lan nga indi mais en tout cas ñoom ñëpp buñ ñu àndee lii lañ am ñun ñëpp buñ ñu àndee lii lañ am ñeneen buñ ñu àndee lii lañ am dans un pays de droit démocratique dialogue politique réellement buñ ko dee wax d'habitude sax ci assemblée ba lay am hmm. mais président ci gis-gisam mu ni kaay leen ñu woo kaay leen ñu waxtaan parce que xëy na ñu ngi jub ay élections yoo xam ni nit ñi mën nañ am ay problème compréhension ñii doon wax ay waxi parrainage ñii doon wax ay waxi kii mënatul bokk ca bëgg nañ mu bokk mu ni loolu lépp man awma ci position mais ñëw leen ñu toog waxtaanee ko mais boo ñëwul mais c'est parce que loolu lañ fay wax intéressé wu la léegi boo ko bëggee teg ci ay non ay détenu détenu politique amu fi boo ko bëggee teg ci ay waxi complot complot amu fi et nañ seet kiy wax mooy kan la mu waxoon li muy wax ak lam nar a wax mais mu yéen mënu leen toog jàpp seen jàmbur ay nit xëy fi naan leen ay wéy dañ ma assassiné ay dañ ma bëgg rey. ah résultat yi ñëw na de nee na résultat yi mu nee woon. Ah, ah, biti réew pour ñu xool yëre yi ñu ci sotti woon keroog. xam xam nga Babacar. Ah. Babacar encore une fois il faut que ñu respecter suñu askan. fii nii bu ma fi génnee jël morso bi bi ngay fobeere jël ko wàcc taqal ko sama oto dugal ko ci rigole bi romb déchet clinique la dans euh, clinique euh, euh, hôpital principal dem dugal ko fa jël dugal ci mbuus dem yónnee c'est que nañu respecter sénégalais yi nañu respecter sénégalais yi loolu bi muy am moom ci ci ba muy commencé wax ay ay moom ak avocat am la avocat ma ngi dem di doxe ay procès moo ko gën a xam yoon fuuf bu jaaxlee ci kooku lay dem hmm. nga tëdd toog toog ba mu neex la nga génn c'est wax yooyu ngeen war a arrêté wax yi ngeen war a arrêté mooy nit ñi leen jàq xool la yow Babacar xool Megi euh, Megi Maram Ndaw xool kii. Euh, Seydou Nourou xool ñi fi nekk ñëpp jël photo suite booti ni leen fii dama fay dem faju ji ñëpp ngeen xam ne kenn du faju ji ngeen koy déglu wax yi ngeen war arrêté mooy nit taxaw di leen wax loo xam ni yéen seen bopp xamu leen xam ngeen ni du dëgg ci ay wax yu dul dëgg la ko teg. après ngeen tok diko di ko nangoo relais. fii du tribunal fi tas yu xabar la. da ngay wax ñu jallalé keneen wax ñu jallalé mais mais mais mais am ngeen obligation am ngeen obligation. jallalé lo xamni yanu na mana wala vérifier ngeen ndax deugul la wala du dëgg si si tu ñu wëyal parce que on plus que 6 minutes. Euh, ñu y a pas aussi. comme question non non y a pas y a pas que ça euh, comme amna yenen amna yenen mais baax na ñu léral waaw d'accord ni que yéen seen responsabilité. moy waxi waxi wax yi piccam muy wax waxi wax yi nga xamni teggul fenn munoo ko wax fenn munoo ko teg fenn dem uti say affaire naan non contact naa yooyu moo fi jeex. ay mais waxu picc moom parfois tax ñu gis ko ci beneen côté bi. non non euh, mais déedéet déedéet am na wax nañu wéyal. am na yeneen am na yeneen laaj yu fi nekk. mais li jaadu mooy li jaadu mooy bu dee résultat yi am na. Mm-hmm. Euh, mu sàkk ci tribunal mu leeral ko. ñu dem ñu àtte yëf yi. Mm-hmm. mais kenn mënut a toog fii tey ne euh, poson am naag poson amul. mais Babacar ah. Babacar tribunal pour mu àtte ay yëf dafa am ay kuréel yu ñu teg yuy dem jëli yëf yooyu yóbbu ko ci labo. dafa am ay kuréel yoo xam ne ñooy def ay prélèvement garantir euh, intégrité prélèvement yi yóbbu ci labo labo bi garantir ko mais nga dem toog sa kër mais dafay mel ni encore une fois nga dellu si kiy wax lii nii moo leen waxoon ni que dafa dem faju ji Sweet Beauty kiy wax lii nii moo leen waxoon ni que am na rapport man bu ma épinglé ba tey ñu nekk ci yoon ca ba tey jii nii reçu déposé wu ko fa kii leen di leen di wax nii mais jot na nag yéen ngeen xam seen bopp xam ni que kii ay wax yi kasaw kasaw lay wax li muy wax tegu ko ci fenn bopp ba léegi bopp ba léegi lépp lu mu wax lépp lu mu wax ci seen tele yi ak seen rajo yi lañ koy weddee mësta indi fir ci li muy wax ngeen bëgg a teg ci ay noo xëy yeewu rek xool ni ko actualité bi fii la jëm mu dem indi ay mouchoir am ak ay laboratoire am yoo xam ni teguwul fenn après yow Babacar nga mën a xalaat naan ay justice justice buy intervenir dafa am ay procédure tey jii nii boo ni woon dañ ma posone da ngay jubali police police mooy summi sa mbubb wala gendarmerie dugal ci mbuus seet laboratoire. mais dañu ñoo dañu ñoo ñoo ko posone. waaw mais mënu leen ko jox mais defal ndànk defal ndànk defal ndànk defal ndànk. am na loo xam ni yanuwul maanaa ba muy wax ni que dañ ko posone du moom am na ay nitam yuñ jàpp am na ay image yow yoo gis ay nitam yoo xam ni ba ba ñoom ci seen bopp ñoo nit kooku ma nga ca kaso ba ca moom nitam la moom mm. nee na kooku rakkam la avocat ba mu na waa jour boobu mënul leen caaxaan yi ngeen di relayer leen caaxaan yi ñun du ñu ñuy caaxaan weesuwul nit taxaw ci kanamu sénégalais yi xool ñu ba sàppar ñu ñun ñëpp ni non damaa feebar

tamit lu tax nga fas yéene jël koppar yi nga laaj. maanaam ndàmpaay nga bëgg ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo lor woon ci 8 euh, mars beeg daara yi lu tax loolu. choix xam nga jéem am dina fi ay polémique yu bari parce que ñenn ñi ñoom seen bopp dañoo defe woon ni que ay man damaa soxla ay koppar Ousmane Sonko man soxlawu ma ko wax dëgg yàlla yàlla teral na ma yàlla teral na ma soxlawuma ma loolu mais exemple lañuy ñuy ku bëgg a doon kilifa bëgg jiite wax lu dul dëgg man lépp lu ma mën a def bañ daan la ba nga doon exemple hmm. dinaa ko def parce que bu leen fàtte ci wax jooju am na ñaari bàkkan yu ci faat hmm. yoo xam ni moom moo leen woo ci ay waxi kese nee naa la boobu ba léegi de reçu déposé wu ko fa ci ay waxi caaxaan wax yu dul dëgg comme wax yeneen yi ñuy wax xaalis boobu man bu ma ko jëlee yéenewu ko sama njaboot ak képp koo xam ni yàlla sas na ma ni dundam ak toppatoowaayam ci man la nekk parce que loolu yàlla may nam xaalis boobu bu ñu ko jëlee dañuy xool ci pàcc ci pàccu askan bi ñi nga xam ni nguur gi war na fa def waaye lam fay def matul wala jullit yi ñang war nañ fa def parce que jullit laa mën nañ sax jox ay ay ay chrétien am na ay kuréel yoo xam ni askan bi war na fa def mais lañ fay def doy xaalis boobu comme que surplus la ñu ko ñoom jagleel leen ko. Mm, moom li ñoom xam naa xaalis boobu xaalis boobu nag xam naa moom euh, jaaxalu leen jafalu leen. ndax ah, ñoom nañ gaaw de. ñi ngi jaay ay lam fi ñu toll nii euh, te ñu ngi am xaalis. nañ jaay li ñu am lépp parce que du du leen ko baal. léegi dialogue bi ci la ñuy ne dix secondes est-ce que tey jii euh, Ousmane Sonko ñu ngi xaar ba xam dana bokk comme du bokk F24 di kuréel gi nga xam ni bees la ci langu politique geeg société civile gi xalifa Sall Karim Wade est-ce que dinañ ñëw ci dialogue bi est-ce que am ngeen ci ay assurance non non man awuma assurance su ci lenn mais li ma jàpp mooy F24 boobu nga wax ñu nekkoon ñu àndoon ak Ousmane Sonko ñoo fi nekkaat tey buñ sonal nit ñi parce que wax dëgg yàlla bu ñu bu ñu nax sénégalais ñi nga dégg F24 yëpp boo xoolee une semaine deux semaines trois semaine ci ginnaaw ñooñu ñoo nekkoon ci ginnaaw. Ousmane Sonko dem créer beneen kuréel pour gën a yokk mënuñu fi wax lu tee dialogue du am ku bëgg a dialoguer na nga jël sa responsabilité ñëw dialoguer ku ëllëgu réew mi sos euh, euh, yitteel ñëwal mais di déglu ay ñi ay ay ñi nga xam dañ naan ay société civile lañ ci ñun ñëpp xam nañ duñ société civile duñu wax mukk mukk mukk lu méngoo ak li askan bi bëgg duñu wax mukk mukk mukk mukk loo xam ni méngoo na ak intérêt askan bi jërëjëf lu arrangé seen benn nit mais comme que far nañ foofu nañ dem jëndi carte de membre foofu après bu ñu bëggee dialoguer ñu mandaté waa ñooñu mais man gisuma dara dara dara lu mën a tee euh, dialogue am bu fekkee ni que ci ñooñu lañ ko teg ñooñu ku xool ñi ko jiite ak ña ko composé boo xoolee ci ginnaaw tuuti di nga xam ni mënuñu wax lu am sens amatuñ doole ñu ngi regroupé wu ministre dajale pour pour pour pour xañ du tourisme et des loisirs jërëjëf Babacar ñu yendu ak jàmm jërëjëf Seydou